bokk ci ut ut maanaam jaay. ut maam jaay non moom dafa dafa gàddaay. moom dafa keneen ka déedéet am na keneen ku nekk ci biir kasu gi dimbali leen ma internet yi. Euh, euh, euh, waaye waaye bu dul Karim xurum xaax du nit dof. du mm. du du ñooñu am na ci am na ci keneen ku bokk biir Pastef ku am tur ku siiw. koo xam ne bokk na ci Fadilou Keita. Fadilou Keita. Mm-hmm. ah waay s'il vous plaît nag ngir yàlla jëmi rasulilaay. Mm-hmm. ah sunu yaay ji Amidia ak jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ca camp pénal ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. ñu nekk ci biir prison bu rëbës bii ak Cap Manuel gii ak yeneen i kaso yi nekk ci biir réew mi bàyyi leen ñii ñu génn ndax au moins ñu mën a bokk sax nag ci ci mariirandoowu élection présidentielle yu 2024 yi ah man de Aïssata Tall Sall xanaa sa yaram du daw ñëw jigéen nga te yaay ah, ajaratu Marème fay sàll première dame du Sénégal mhm. ah balaa noo wax ay waxi fondation ak ay waxi dimbali ay waxi jàppale jàppale leen ñi jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kaso yi ak góor ñi nekk ci biir kaso yi waay doomu jàmbur yéeg jëkkëru jàmbur yéeg soxna jàmbur yéeg ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir kaso yi mm-hmm. waay waay dimbali leen nit ñi waay nag ngir yàlla waay yéen association presse yi yéen a ngi nelaw rek léegi ngeen xandoor nag est-ce que xandooru leen ba noppi ah waa CAP yéen ñii di waaj a feetu nii waa convention des jeunes reporters du Sénégal ak mhm. ñeneen ñi ci topp waaw dëgg la da ngeen di sargal ak di màggal magum journaliste yi nekk ci réew mi euh, takkal leen ay raaya loolu rafet la wax dëgg yàlla macha allah ndax gëm naa ne nit boo koy euh, boo koy gërëm ci dara na bu da koy def ci bu muy dund dëgg la balaa nga ko rendre hommage da nga koy rendre hommage ci bu muy dund doo bàyyi ba mu génn àdduna wala gannaaw ku koy door a wax naan ko jërëjëf ah te vraiment euh, à l'image des grands journalistes de ce pays yi nga xam ne ñoom ñoo tax ñu ñun ñu ñu dugg ci biir formation bi ñu dugg ci biir journalisme bi euh, ñooñu ñu jara takkaraaya la ci ñi fi des yal na yàlla guddal seen fan ñaanal itam ñi nga xam ne ñoo ci génn àdduna ñëpp waaye bu ngeen takkee raaya yi ba noppi ñan lañuy takkal raaya leen ko bu baax de dañoo tànn ay ay yu mag yu xam ne mhm. dañ leen a bëgg euh, magnifier voilà mm. sargal leen c'est une très très bonne chose mm-hmm. vraiment parce que cérémonie bu ci nekk war na mën a am acte bu symbolique waaye acte bu symbolique bi jiitu lépp nag mooy wax ci ñii nga xamante ne seen ay confrères lañu wala ay acteurs de médias lañu wala tout simplement ce que la presse a traversé mm-hmm. durant cette année 2023 en termes d'arrestation ci ñu ci bëri loo xamante ne dund nañ ko ci loolu aussi ça doit être un point important yoo xam ne mm-hmm. association de presse yi ak fépp fu ñu ci mënti doon dafa war a bokk ci seen discours combat la war a doon engagement de tout un chacun pour que mu jeex fi une bonne fois pour toutes donc vraiment Euh, ça aussi ce sont des yoo xam ne maa ngi leen di ñaan à ce que ngeen inclure ko ci li nga xamante ne moom mooy seen ay programme oustaz Assane mm-hmm. yàlla na ko yàlla génne fa mu ne ñi ma fi jot a lim ñëpp ak ñi nga xam ne wax dëgg yàlla jàpp ma tuuru ñëpp ndax tellement arrestation yi dañoo bari yàlla nañ leen gaaw a génnee ci kaso yi ba ñu mën a dellu ci seen i njaboot ak seen famille. Mm-hmm. amiin ajaratu mami démb président Macky Sall ci discours bu ñu doon amal fële ca Genève nee na les droits humains sont respectés au Sénégal euh, kii nag di Birahim Seck ak euh, Alioune ñoom nee nañ déedéet nee na du Sénégal lay wax de beneen dëkk lay wax. waaw mais parce que ak ak yelleef doomu aadama kenn kenn kenn kenn respecté wu ok parce que déjà foog ñu définir lan mooy droit de l'homme mhm. boobu mënee duggal foofu nga waxal ma lan mooy droit de l'homme. dafa baax nit ñi di fàttali. droit de l'homme mooy lan lu tax ñu voté ko pourquoi mu bokk ci li nga xamante ne moom mooy sunu fonctionnement de tous les jours. Mhm. lan moo tax ñu régir ay règles yoo xam ne dañ ko fi teg pour ñu mën a sàmm ak ak yelleefu doomu aadama yi. Mhm. ci dégg-dégg à partir de quel moment ngay mën a wax ne euh, droit de l'homme yi enfreindre nañ ko ci ci ab république à partir de quel moment ngay jàpp ne tooñ. ak ñàkk jox nit li nga xamante ne moom la yelloo yépp mhm. ci wàllu àq ak yelleef am na ci lu ci bëri lu ci manqué na bu ci loolu il faut qu'on redéfinisse les droits de l'homme lan la absolument c'est quoi ces parce que li wóor ba wóor mooy bu fekkente ne da ngaa taxaw fii ci Sénégal di wax ne droits de l'homme yi dañu ko respecté ñenn ñu ci bari. Mhm. ba ci yenn organisation yi nga xamante ne ñooy xeex wàllu droit de l'homme lu mel ni euh, notamment Amnesty International je pense que am na ci yu bari yoo xamante ne dénoncé nañu ko ci réew mi ndax jàpp nañu ne euh, dafay enfreindre justement ces règles des droits de l'homme yi ñu war a respecter partout dans le monde entier xam nga bu fekkante ne amul woon kon ku nekk mën ngaa am sañ-sañu lor doomu aadama pardon te dara du la ci fekk mm-hmm. mais bu fekkente ne dafa am lu la ci war a mën a fekk rek en termes de recul par rapport ak loo xamante ne jàpp nañ ne lu ñu lu ñu yokkul la loolu rek déjà am na benn fenn foo xam ne dañu fa war a taxaw seetluwaat bu baax li ñuy def mm-hmm. na bu ko dans ce pays combien il y a eu d'arrestations mm-hmm. pourtant am na ci ay euh, rapport yoo xamante ne Amnesty dafay wax ne ñenn ñu ci bëri parfois du ñu respecter yenn ak ak yelleef yi nga xam ne moom la détenu bi war a am te pour ne pas dem sax fu gën a sori on va citer l'exemple de l'homme qui actuellement la des hommes les plus célèbres de ce pays mm-hmm. de Ousmane Sonko yi nga xam ne kaas nañu ko ba ci biir seen cours boobu ñu taxawal Afrique muy CEDEAO mm-hmm. te dañoo jàpp ni lu bëri dañu ko respecté wul ci ay wàlli àq ak yelleefam yi nga xamante ne ñu ci bëri maanaam li nga xam ne yoon daf ko tëkk tënk wax ne ci fii la ñu war a mën a jaar am na ci yu bëri yoo xamante ne ça n'a pas été respecté. Mhm. na bu fii am na ay doomu aadama yu bëri yoo xamante ne jàpp nañ ne y bukk de restrictions par rapport ak ni nga xamante ne mooy euh, nit ñuy dundee protection bi nga xamante ne war nañ ko ci am. ak surtout lan moo la ci war a mën a fekk parce que le problème mooy est-ce que man ma ma vraie question mooy si on ne respecte pas ces de l'homme Euh, vraiment maanaam je dirais même pas punition mais est-ce qu'il y benn réglementation boo xamante ne yow war na mën a tax yow balaa ngay mën a commettre yenn actes yi. Mhm. nga mën a tiit ci naka nga ko war a mën a defee ak nan nga ko war a mën a defee. moo tax Birahim Seck euh, ne ko monsieur le président Macky Sall sous tous les cieux la malgouvernance l'injustice et les inégalités sont les pires menaces aux droits de l'homme et alimentent le populisme le radicalisme e l'extrémisme Nabou nga ne waxaatal. Birahim Seck euh, ginnaaw bi nga xamante ne ci discours président Macky Sall yëkkati fële ca euh, euh, Genève di wax ni il va combattre sans répit le populisme le radicalisme et l'extrémisme violent qui selon lui sont des menaces aux droits humains à la démocratie et à la liberté. Euh, ci benn tweet bi nga xamante ne euh, Birahim euh, Seck bu Forum Civil daal dina koy publier dani monsieur le président Macky Sall sous tous les cieux la malgouvernance l'injustice et les inégalités sont les pires menaces aux droits de l'homme et alimentent le populisme le radicalisme et l'extrémisme et c'est dans ce sens aussi Alioune ci la yëkkatee kàddoom moom aussi daal di tontu kii di chef de l'État très bien xam nga lan moo tax ma ma laajaat la ko nga wax ko. voici les droits fondamentaux. le droit à la non discrimination. le droit à l'égalité entre hommes et les femmes. le droit à la vie. le droit au travail droit de ne pas être soumis à la torture. droit de ne pas être tenu en esclavage. le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne je répète le droit à la liberté. et à de sa personne. Le droit d'être traité avec humanité en détention. Le droit de circuler librement. yaa ngi dégg le droit à un procès équitable. le droit à la connaissance de sa personnalité juridique. le droit à la liberté d'expression. je répète le loi droit à la liberté d'expression le droit de liberté d'association waaw Nabou pour bu ma yemee foofu rek xam nga qu'est-ce que le le le droit de l'homme définit comme euh, l'un des règles fondam fondam l'une des règles fondamentales mm-hmm. mooy mm -hmm. la liberté xam nga lu tax mm-hmm. parce que la volonté humaine est une partie importante de la dignité humaine mm-hmm. waa léegi bu ñu fii est-ce que li ma la fi wax nii danga nga fi dégg populisme non parle de digression de la loi d'une de, du, du droit de la personne c'est parce que daf ci am yu bëri yoo xamante ne nii dañoo jàpp ne moo xaw a salfaa ñëw mm-hmm. Nabou est-ce que aujourd'hui mën nga wax ne ci réew mi euh, le droit comme droit bi ñu accordé la liberté d'expression am na fii liberté d'expression. Mm -hmm. est-ce que ni ñu ko définir yow jàpp nga ne am na ci réew mi. parce que droit de l'homme yi ay normes la yoo xamante ne dafay euh, reconnaître ba pare di protéger la la dignité de tout être humain est-ce que aujourd'hui dans beaucoup de dossiers ici jàpp ñu ne dignité nit ki xaw nañu ko écorcher tuuti li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu droit boo mënti am yow nga circuler mën a dox ay say soxla ak yeneen yu ci topp mhm. bu nu xëyee ne la xañ nañ la circulation ci yenn mbir yi est-ce que xañuñu la benn ci sa ay droit mhm. boo xëyee war a am liberté d'expression te amuloo ko est-ce que xañuñu la yenn ci sa ay droit bu fekkente ne da nga nekk ci réew moo xamante ne nii nabu da nga participer ci évolution wu réew mi mhm. am ci droit am ci sa gis-gis ak sa sañ-sañ ñuy jàpp ne ou ñenn ci ñi nga xam ne xëy na peut-être loolu ça touche plus les acteurs politiques am na ci yu bëri yoo xamante ne ci seen ay àq ak yelleef euh, dañu ko dul xëy na totalement respecté. Mm-hmm. loolu entrave la. Mm-hmm. na bu injustice yi nga xamante ne sénégalais yi dañu jàpp ne lu ci bëri dafa am ci réew mi loolu entrave la ci droit de l'homme mm-hmm. donc Birahim a bien raison. de redéfinir les principes fondamentaux des droits de l'homme en tout cas ce qui est sûr c'est que dans ce pays liberté d'expression tax nañu jàpp fi ay nit dans ce pays injustice tax nañu jàpp fi nit parce que boo jëlee mbiri euh, mërs yi nga xamante ne moom la ñu tuumaal Ousmane Sonko te ñëpp d'accord ne même tribunal ba waxul ne maanaam lañ la tuumaal di ci wàllu viol yow yaa ko def te il y eu combien d'actes injustes yoo xamante ne moo suivre processus boobu nga xam ne moom la tënk Sénégal diggante deux mille vingt ba fii ñu toll di wax ak yow. après la ñu ci inclure yeneen affaire juridique judiciaire. Mm -hmm. mais au départ c'était une histoire de mœurs boo xam ne écorché na dignité euh, kenn ci ay leader politique parce que quand ce procès la a été rendu public. ñu def fa ay révélation yoo xamante ne uññi na suturawu doomu aadama. là on touche profondément la dignité humaine. Mm Donc comment peut-on dire que les droits sont respectés ici par rapport ak li nga xamante ne moom la ñu tënk ak li ñuy dundee na bu ku ne xam ne ne fii tu prends des pincettes par rapport à beaucoup de choses parce que lu ci bëri da koy calculer xam nga lu tax boo gestoo xool ci sa ay nawle yi nga xamante ne jaar nañu kaso ci xëy na peut-être am benn positionnement boo xamante ne dañ ko ci am mhm. bu boobaa yow looy defaat di ko calculer bu baax a baax te bu calcul xësee ba dugg rek problème am na na bu combien de fois des demandes de marche mhm. d'autorisation de marche ont été introduites et par la suite non accordées mhm. non autorisées loolu nga yaakaar ne du entrave ci Euh, droit yi nga xamante ne moom la sénégalais yi am. est que du kon euh, entrave yooyu nga xamante ne ñu ngi koy euh, def ci droit ak ak yelleef yi nga xam ne moom la sénégalais yi waroon am te amuñu ko est-ce que du loolu moo tax tey sortie bu président Macky Sall def à rek que mu nekk ci ay sommets dégg nañ ko récemment aux États-Unis ak aussi interview bi nga xamante ne accordé na ko kii di Jeune Afrique buy wax on a l'impression que dafay. Euh, bëgg justifier ñi nekk ci kaso yi ak situation politique bu tendue bi ñu am au Sénégal par rapport à l'opposant Ousmane Sonko est-ce qu'il n'est pas en train de se dédouaner wala il n'est pas en train de se justifier quelque part bu demee euh, à l'extérieur euh, mën nañu ko jàngatee noonu mhm. mën nañu ko jàngatee noonu mën nañu jàpp ni xëy na il a toujours besoin de montrer que en réalité li nit ñi jàpp ci moo xew Sénégal que réellement loolu amu fi. Mhm. mais euh, l'avis des autres n'est certainement pas important. Mm -hmm. ce mhm. qui est important c'est l'avis des Sénégalais par rapport ak sunu dundin est-ce que chez nous sans même vouloir le dire wala bu nu ko bëggut a wax it wala bëgguñu ko fësal ñun ci suñu bopp sentiruñu ne dafa am fu ñu tënk. Mhm. je te dirais oui la plupart des Sénégalais jàpp nañu ne dafa am fu ñu tënk. Nabou est-ce que xam nga parfois la ñuy fawee yoo xamante ne dafa terre ndax dañuy jàpp ne ay débat de bas la par exemple je donne exemple tout bête. oui ngay tàmm di dugg taxi loolu lay faral di wax boo duggee ci taxi xamal looy wax. Mhm. bu la taximaan ba xawee junj ci ay question politique bu ca sori. Mhm. ndax xamoo taximaan boobu ndax dañ koo yónni wala ak leneen lu ca topp Nabou même boo toogee ci jotaay di waxtaan. li ngay waxtaanee da nga koy peser parce que ci biir jotaay bi xamuloo ndax renseignement généraux nga ca. Mhm. wala am na leneen loo xamante def la est-ce que loolu tënk gi ñu la tënk sans pour autant que ñoom sax ñu wan lañ la ne tënk nañ la mais ambiance su réew mi ak situation bi ni muy doxee looloo lay tënk yow. rawatina ñun nii bu ñu sumee suñu casquette. Euh, war a génn vivre normalement nekk comme un sénégalais lambda mën a waxtaan ci situation dëkk bi librement wax ci liñ ci xalaat. ak ni ñu ko bëggee un peu plus. non tu ne tu ne peux tu que booy xool sax yaa ngi xool téléphone nit ki. yaa ngi bàyyi ndax yàlla ñu la. <laughs> Uh-huh, uh-huh. est-ce que vidéo wu ñu la. Uh-huh. est que photo jaarul ci diggante bi. te ku wéet am prise de position. finalement da ngay dem ba yow ca koñ ba nga dëkk. fa ngay liggéeyee. ak booy dox sax. yaa ngi bàyyi xel ki la topp mën mën na am ka la topp yéen yéen a bokk yoon de. dëgg la de waaye boo yàggee di ko fa seetlu danga naan kii est-ce que du dañ koo yónni ci man. Mm-hmm. est-ce que kii wut xibaar. wala wutul foo xamante ne foofu la ma bëgg kepp nabu. Mm-hmm. boo bëggee dégg dëgg ñun ñoom même bu ñu ko waxul tënk nañu visa par rapport ak actes yi ñuy posé xam nga actes yi ñuy posé ñoo définir lépp en réalité. j'ai même envie de dire que c'est même un un faux débat que de vouloir plaider ailleurs. que chez nous tout va bien que les droits de l'homme sont respectés alors que ñi ñaa ngi casse inégalité alors que ñi ñaa ngi casse injustice alors que ñi ñaa ngi casse droit à la grève boo xamante ne ñu ci bari dañoo am ay jafe-jafe wala ba buñ dee grève amuñu nopp bi nga xamante ne moo leen war a déglu ñu bëri ñu ngi casse vague d' arrestation yu bëri yi am ñu bëri ñu ngi casse les euh, non autorisations de marche de protestation de sit-in ak toute autre forme de protestation boo xamante ne constitution bi au delà de daf koo maye waaye droit de l'homme it da ñu ngi casse le manque de liberté d'expression mhm. aujourd'hui les gens ont même peur ñu dugg ci seen biiri réseaux sociaux bopp mhm. sa page Facebook bopp sa Twitter bopp sa Instagram bu bopp bind fa benn texte boo xam ne sa xalaatu bopp la ñemeete ko parce qu'à tout moment on a vu des gens sur des textes Facebook être arrêtés mm-hmm. et pourtant ce Facebook là cette page leur appartient je dis bien la page bi nga xam ne foofu la ñu publier seen mbiri bopp ñoom ñoo ko moom ñoom la concerné ah. pourquoi des gens ont quitté ce pays mm-hmm. daw dem laqatu ci feneen mais euh, euh, exemple bu bu bu gën a gaaw euh, restreindre bi nga xam ne def nañ ko lii di TikTok léegi balaa nga koy am il faut nga am VPN. Euh, loolu rek euh, restreindre suñuy suñuy suñuy liberté la ndax daanaka li ñu bëggoon di def yépp tey duñu ko def tey lu ci mel ni euh, ay procès wala yenn yi bu fi amee ni ñuy wàññee débit internet bi wala ay manifestation bi fi amee ñu tënk internet bi ñaata fan lañ fi toog am ay société yoo xamante ne daanaka jaaree nañ fa seen chiffre d'affaires daal di wàcc ndax dañoo téye internet bi ba seeni liggéey daal di taxaw ci loo xamante ne c'est lu ñu war a am la mais dañu ko dañu ko tënk donc bëgg naa xam fan la ñu teg nii les droits humains sont respectés au Sénégal. moo tax ba ne la. Mhm. ñoom ils peuvent bien tenir un beau discours. Mmh. mais en réalité les Sénégalais qui vivent ici disent et vivent le contraire de ce que eux ils disent. li wóor ba wóor mooy dafay naqaree setal ci réew mi nga ne. Euh, wax dëgg yàlla injustice amu fii mhm. <laughs> liberté d'expression totale am na fii non je suis désolée mhm. quand on en arrive à l'arrestation de journalistes ah, il faut revoir mhm. euh, ce terme de liberté d'expression quand même le forum civil euh, bu waxee dara sax à la limite ñu de politique de partisan il y a un problème je dis bien quand le Sénégalais lambda ne peut pas s'exprimer librement moo xam euh, par voie d'arrêté boo xamante ne da nga koy yóbbu euh, ci li nga xamante ne d'autorisation boo xam ne da nga koy yóbbu ci autorité bi nga xam ne moom moo la war a autoriser pour nga mën a def sa marche sax problème la ci réew mi on ne peut pas parler liberté de liberté d'expression mm-hmm. quand les gens ne peuvent plus même faire des conférences de presse dans leur propre permanence mm-hmm. fii la xewee Sénégal xewul Tchad on ne peut pas parler de liberté d'expression Nabokor. Mhm. quand il y a des gens qui sont arrêtés et on ne parle pas de ou deux personnes on parle de li mu nit yoo xamante ne ñu ngi ci biir kaso yi tëdd pour les raisons dont je t'ai cité on ne peut pas parler de respect de droits de l'homme ici ou de liberté d'expression mhm. dafa am loo xamante ne c'est des droits fondamentaux yuy régir société bi luy tax ñun ñu mën a dund et nekk ci ci ci Euh, ni ñu koy waxee ci nekk ci benn euh, forme boo xamante ne moo ñuy permettre kenn ku ci nekk nga mën a délivrer li nekk ci yow bien sûr dans le respect euh, des yi nga xamante ne ak euh, dans le respect de la législation. Mm-hmm. pour que yëf yi mën a tegu ci yoon mais gis nga lu ci nekk dafa war a am limite parce que kenn ku ci nekk li nga xam ne moom nga moom dañ la ko war a jox ba bu mat sëkk. Mm-hmm. voilà donc le président de la République. Euh, Birahim Seck euh, lui a apporté une réponse hyper pertinente et moi j'ai envie qu'ils nous disent en réalité euh, quand ils nous disent am na ay respect des des des des droits de l'homme yoo xamante ne am na fii ci réew mi mhm. na xam ne le peuple sénégalais wax dëgg yàlla même bu fekkante ne loolu moom nekkul woon bëgg-bëggu boppam mhm. mais à force de prendre certaines décisions à force ñu ñuy imposer benn rythme de vie parce que ñoom ñoo ñu choisir finalement ñun ni ñu war a dundee nu nu war a waxee ak nu nu war a doxee mhm. ba nga xam ne de telle sorte que lu waay di def fii da nga koy calculer lépp da nga koy bàyyi xel te bu calcul xasee ba dugg rek maanaam am na lu bëri lu ñu rocc ci yow en terme de de liberté ak leneen lu ci topp. Mm-hmm. je pense qu'il faut laisser les gens euh, pouvoir s'exprimer librement. Mm-hmm. il faut euh, lépp loo xamante ne moo ñeel ci wàllu ak ak yelleefu doomu aadama yi il faut consulter. les rapports yi nga xamante ne les droits de l'homiste moom la ñuy génnee te au-delà mm-hmm. de consulter ces rapports la prendre li nga xamante ne moom mooy Euh, l'importance mhm. de lu ñuy souligner pour que ñu mën ko corriger et à l'avenir ñu mën a évoluer par rapport à beaucoup de choses maître Wade dafa bàyyi woon liberté d'expression ci réew mi ci foo xamante ne dafa amoon amoon solo na bu mhm. il permettait à tout un chacun de pouvoir donner son opinion par rapport ak li nga xamante ne moom mooy doxalinu réew mi mhm. ak leneen lu ci topp mais fii li ñu tënk dafa bëri nabu y a beaucoup de personna personnalités ou de personnages yoo xamante ne ils sont dans dans la politique yoo xam ne ils ont ils ils ont exilé ce pays dañoo génn dem dëkki feneen est-ce que loolu lu ñu créé la. Mm-hmm. bu ñu nekkoon ci dëkk boo xamante ne am na ñu sañ-sañu wax li nga xamante ne moom mooy seen àq ak yelleef sans pour autant ñu tiit ne bu ñu génnee dinañu gis oto bu weex bi gaare kon nabu Cor kooku du daw làqu di ji feneen. Mm-hmm. le cas de maître Ngagne Demba nga xam ne. dëkk bi daf koo soxla un jeune aussi talentueux dans le domaine de la justice aurait pu être utilisé à bon escient pour les Sénégalais absolument et il a été ou presque même contraint ou en tout cas il s'est senti menacé à tel point que jóge na ci réew mi dem na Mali te ngañ lañ ci xam te ngañ lañ ci xam am na ci bëri yaa ngi mën a léegi man Diagne dafa daw làqatu ji feneen. Mhm. donc loolu yëpp nag ay mbir la yoo xamante ne est-ce que dañu ko war a xoolee ne ñooñu ce sont des gens de Pastef ce sont donc forcément des personnes qui dérangent. Mm-hmm. ou alors dañ leen war a jàppee ne sénégalais lañu au-delà de tout cela ay nit lañ yoo xamante ne dañu war a respecter seen ay droits de l'homme je pense que point de vue bi bu ñu ko tegee foofu dinañu comprendre ne am na lu bëri lu ñu war a améliorer ak lu bëri lu ñu war a corriger en termes de respect de droits de l'homme chez nous. d'accord jërëjëf euh, Adjaratou alors ñu daal di euh, ñëw ci euh, Anta Babacar Ngom mi nga xamante ne démb dañ ko gazé fële ca Podor ginnaaw doxub ne